këram deuxième étage ay euh, 7TV la woon suñu plateau yi fa la nekkoon fa la suñu appartement yi nag ñu bari na beaucoup de pognon. teew da ngaa bëgg pognon macha allah. pognon man pognon laay wër. ci <laughs> pour la nga de. pognon ma la. wax loolu. ko da ngay yàlla mosal ci ñàkk ko zéro zéro franc. mais mais je sais pas ma xam mun naa si. non non non nañu ko bàyyi mu def. non ci lu mu wax loolu rek laa bëggoon kii dara. alors bàyyi jaaw kii <laughs> sama waay la. du ma ko baax nañ def suñu. tey moom da ngeen jubóor torop depuis sa fajar la. <laughs> non sama waay la non bu déglu ma kii moom sama xel dafa dellu si parce que Malick bi wax dama taalibe El Hadj Malick. Mm, ndeysaan donc ay oustaz tey lan la ñuy waxtaane. tey daal dama ndokkeel nag julliti yàlla julliti àdduna bi yëpp ci gàmm bi nga xamante ni ci la ñu jóge gàmmuwaat bi démb mm-hmm. Ndiassane di di sargal Ndiassane mais di sargal waa kër Baye Niass mm-hmm. waa kër Baye Niass ñoom dañuy gàmmuwaat Baye Niass moo bëgg yonent bi moom bu moom bu weer wi teeroo daawul xar ko ko sargal wala ko ko ndokkeel moo daan ndokkal ndokkeel bokkam boppam hani an li ibrahima laaxa xilaaluhu ba bada lin naziri la jamaaluhu ay waay maa ngi ndokkeel Ibrahima Niass ñasuwaay weeram wi teru na weer bi nga xamante ne boroom gis-gis yëpp xam nañu taar bi ci ne commencé di way weer yu ndeysaan bu bés bi ñëwee mu gàmm ne bés bii la gane woon àdduna dama koy feete feete bés bi dellu sat ne damay gàmmuwaat kooku kooku bëgg yonent bi yàlla na yàlla tasu si barke waa Njaasaan ñoom ne dañuy bàyyi comme Tiwaawan ak Njaasaan léegi dañu takkaloo sax comme Tiwaawan ak Njaasaan nii la ñu def ñu ne nañu bàyyi ñii ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu feetee bésu juddu bi ñun nag ñooy way jur xam nga ñoom ay shérif lañu ñun nag ñoo jur ñun ñu ngénte Touba ren gis naa fa ci seen ci seen màggal bi ci biir jumaa ji façon boo xam ne sama karaw yi dafa taxawoon parce que ñoom ñëpp dañu jóg taxaw ci biir jumaa ji waa ji di tagg yonent bi sallallahu alayhi baat bu mu wax rek ñëpp àndandoo ne sallallahu alayhi wa sallam mu waxaat beneen baat ñu ne sallallahu Sénégal dañu bëgg yonent bi dëkku jàmm la fii jàmm rek moo fi am allahu taala moo tax dama bëgg ñëw rek leen pour ndokkeel ñépp rek ci ci gàmm bi ah ñu tëj boobu buntu nag donte du mës a tëju nag parce que gàmm moom bés bu ne gàmmu la. oustaz euh, lu ma bëggoon xam euh, weer wi nga xamante ni le prophète Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam hmm. juddu na ci lan moo ci amoon ci ay misaal. mais misaal yi misaal yi du jeex. lu ñu mën a nekk xanaa dañ ciy dañu ciy tënk rek xam nga dèjà euh, yàlla mi wax ci alquran a'uudu billahi mina shaytaani rajiim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fii tadliil wa arsala alayhim tayran abaabil basa kooku Abraha Abraha gouverneur u Najaashi la woon Najaashi moo nekkoon moom la ñu wax Haïla Sélassiye moo nekkoon buuru Éthiopie moo amoon benn gouverneur yabal ko ci Yaman moo gisoon nit ñi ni ñuy demee Makka chaque année di fa yóbbu ay alal pèlerinage bi Kaaba gi moom mu am jalousie ne dafa bëgg a toj néeg boobu tabax ci euh, Sanaa ca yeman néeg boo xamante ne dafay décorer ak or ak xaalisu galab kii ba mu gën a rafet Kaaba gi détourné nit ñi foofu kooku moo ñëwoon ne dafay toj si Kaaba gi bi mu ñëwee événement bi ak ni ko alxuraan nettalee nga xam ne yàlla ay picc la leen booleel yu jóge yoo xam ne picc mu ci nekk am na xeer bu mu gàddu sàdd ko ci kaw euh, militaire ba jëm si woon ci kàmba gi ñoom ñépp ñu ñu yam fa loolu bi mu amee ak gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa que cinquante jours juróom fukki euh, euh, juróom fukki fan rek bi amil fii di yow man baadal noonu moom la si jël xaaji Malik di nettali ca ca noonu yeba loolu benn la dafay wane ne yàlla subhaanahu wa taala dóor na benn mbir boo xamante ni adduna bi yëpp dootuñu ko fàtte lan la bëggoon ñu koy fàttaliku tout le temps la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ak mi nga xamante ni ci la sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna xamuloo ne jigéen judduwu ci mm. at moom yëpp ci àdduna bi wërngël këpp ci continent yëpp at moom 571 jigéen ju ci wasin rek sa doom góor la Seydi El Hadji moo koy moo ñu koy wax ca ca ca nu ba turandoo sama sama sama sëriñ wali nis wali nisa azina rahmanu hamla zukurin dalika al amu ikraman li muxtarami yàlla subhaanahu wa taala digal na jigéen ñépp at moomee ku ci ëmb rek bi nga wasinee rek góor la jigéen yonent bi amul amul euh, ku mu maaseel ku mu ma ku mu bokkal benn année bu nu juddoo bu jigéen ñu ne Seydi Hadji Malick loolu lan moo tax mu ne yàlla moo ko terale moo ko wormaale sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faxdarat al ardu wal ashjaaru qad xumilat fa sumiya al aam aam al fathi war rafami at moom taw mi dafa taw taw taw taw bu abondante adduna bi yëpp verte lépp ñor képp ku bayoon daan góob dix kilos wala cent kilos euh, du double nga ko ay yoon yoon yoon yoon toon yëpp naat garab yëpp meññ loolu Euh, remarque la boo xamante ne seetlu war nañu ko ci at mi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane gane gane àdduna waxat talaaxat wuxuusul xaafiqayni kama sawaakinul baxri tat laaxat min an naami keroog bukki daje na ak bëy bukki bu xiif daje na ak bëy ci biir àll bi di di bëri ak moom bu ee eh, bëy kaa ñu bëre bu bëree daan na ko yëg ci kawam daj wëlbati ko bëy yëg ci kawam bu ñu bëree ba mu ne ko bukki ñibbil ca kër bëy ñibbil ca loolu xew na ci bés bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi te bu keeg bay du ñu tas du ñu mës daje ci kërub àdduna keroog wax nañu ne jën yu ndaw yi ay yabooy ak ay jarañ ak xam nga jën yu mag yi ñoom la ñuy dundee jën wu mag bu ci daje ak jën wu ndaw da nga ko nekk sama ginnaaw gi day xasan kaay nga riis sa laaf yi sama ginnaaw ngeen ànd muy riis laafam yi ci sa ginnaaw ba fa nga xam ne fa nga doon xasan fa nga bëggoon mu wokkal la ko dañ nga ne ko waaye dal dil dem te bu foo ma sa daje ak moom mooy saw ñam da nga ko daan lekk ndax lan ñi ci biir géej gi xam nañu ne tey ëmb nañu sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jàmm dafa amoon jàmm dafa am jàmm dafa am atum jàmm la mm, moo tax ñu moo tax ñi ñi ko bëggul di fàttaliku man xaw ma fan la seen xel yi ne gàmm nan lañ ko war a defee ak euh, njëriñam mm. njëriñ bi nga xamante na ci ci ci gàmm waaw gàmmu ni ko war a defee moo di euh, jàngal nit ñi lan mooy yeneen bi léegi nag man maa ngi bëgg am tuuti jaaxle parce que woote ne gàmmu euh, màggal juddu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nga dajale nit ñi moo tax ñu woote ba noppi di wax ay politique lu ne nga dugg ca ba gàpp ba guddi gi jeex du fa tudd lenn lu jëm ci xar baax yonent bi mm. wala ay mu'jizaatam wala ay kaawteefam mais loolu du gàmm mooy jàngal nit ñi kan mooy yonent bi fàttali nit ñi kéemtaan ak kaawteef yi nga xam ne xew na ci li ñu ko ëmbee ci yaayam yi mu doon gis ci ay xar baax ay kéemtaan yu muy gane àdduna mbir yi nga xamante ne xew na wane nit ñi kan mooy màggaayu yonent bi salaay salaam pour mu tàbbi ci xol yi parce que moom moo wax ne képp ku ma bëgg rek bu ëllëgee di di nga dem aljana mm. te nit ki boo ko xamul mënuloo ko bëgg kon gàmm ni ñu ko war a defee mooy nañu bari lu ñu jàng alquran nañu bari lu ñu jàng salaatu ala nabi di di di di julli ci yonent bi salaay salaam mais surtout bu mbooloo mi dajee nañu leen fàttali kan mm. mooy si sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lii mooy lii mooy gàmm Seydi Xaaji Maalik dafa dafa wax ne ala azimu laylal wilaadati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami udulu Seydi Xaaji Maalik nee na màggal leen guddi gi yonente bi salallahu alayhi wa sallam gane àdduna mais nag na ngeen ko def ngir régler seen bopp nag seen kanamu borom bu fekkente ne jengul benn yoon jëme leen ci loo xamante ne lu xaraam la wala lu lisaan di tere la xëy na alors imaam man j'ai l'impression que am ñu bari ñi nga xam ne dañuy bëgg bëgg lu yonent bi mm-hmm. donc ku nga xam ne dafa bëgg yonent bi nan la war a mel nan la war a comporté woo parce que boo yonent bi rek ñu bari dañ koy daal di bàkk mais au fond du ñu respecté rek li nga xam ne mooy julli yàlla yi donc bëgg yonent bi dëggantaan nan nga war a mel nga maa bëgg yonent bi maa bëgg yonent bi yonent bi yonent bi ne julli leen nga ne julliwuma mm-hmm. woor leen nga ne wooruma génne leen asaka nga ne génnewuma asaka bu leen naan sàngara nga ne maa naan ba ca yax ba ah te ba tax tey wootewu gëm yonent bi tey naa question bi dama koy delloo ñépp rek li li waykat bi wax rek tansu ilaha wa anta tazamu xubbahu hada la amre fil xiyaasi batiru law kaana xubbuka sadiqan la ataatahu kay naa rek ne waaye xale bu jigéen bi moo jongama waaye man kii kii kii nopp naa ko kii nan lay def ba takk ko waaye ba jot ci moom salaamaaleykum mu ne la waaleykum salaam ubbi la xar kanam wuyu la ah waay kay naa yow mi macha allah dama da ngaa jongamalal ma ne ah merci beaucoup nga ne ko waa mais nan lay def pour takk la mu ne la indil can nga ne ko ñaata mu ne la jox ma cinq cent mille boo ma joxee cinq cent mille ma ma nga takk ma ma sëyal yor dix millions ci sa poche dix millions laa kon donc il te restera combien neuf millions cinq cent sa poche mm-hmm. nga ne ah non loolu nag jaraluma ko moom bëgguloo koy daal. te dëgg-dëgg waxoo dëgg bëggoo ko. bëgg naa la bëgg naa la bëgg naa la waaye jaraloo ma dara. Mm. du dëgg mbëggeel gi du dëgg de. loolu mooy bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sunnaam gi jaraluma dara. Mm. bëgguloo ko da ngay wax c'est taafil ilaha wa anta tazaamu xubbahu hada la umri fi lqiyaasi badiu law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu ina al muhiba liman yuhibu mutiu nit ki bu bëggee nit ki ci dëgg-dëgg daf koy jaral sa bépp xeetu sacrifice Seydi Haaji Malick nag tënkal ñu ko ci bunt bi ñuy wax wa waajibun taatul haati mahabbatuhu kada tibaau alladi yati min al umami Seydi Haaji Malick nee na topp yonent bi day lu war la bëgg ko lu war la waaye topp lépp loo xamante ne indil nañu ko aussi ci ay charia ak ay yoon aussi waajib la lahal alaama tuqaalu inna aazamaha isticmaalu sunnatihi min jumlatil umami Seydi El Hadji Malick nee na bëgg yonent bi am na ay mandarga mhm. nu ñuy xàmmee ne kii dafa bëgg yonent bi am na ay mandarga de am na ay signe mu ne ba ca gën a rëy nag mooy ki nga xamante ne fekk teg tànkam ci ci sariya teg tànkam ci sunna kooku bu wootee woon ni bëgg na yonent bi kon ñu gëm ko waaye bëgg naa yonent bi te doo def dara suñu santaane tanzimuhu waltizaazun xiina taskuruhu xubbul qurani wa ashaabun lahu karami di màggal yonent bi salaay salaam bu ñu koy tudd ak di ko way nga kontaan di yëngatu di yëkkati sa alal di joxe. nee na loolu bokk na ci mandarga yu wane ne yow mi bëgg nga yonent bi salaay salaam waaye bëgg alxuraanul karim di ko jàng te di ko topp te di ko jëfee waaye bëgg saxaaba yi Aboubacar Omar Ousmane Ali nga bëgg leen comme ni nga bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tëjee ko nag yaa man yuriidu jinaanal xuldi yaskunuha faqad diman talabal miftaax yi. toxtare nañ yow mi nga xamante ne da bëgg a dugg aljanna bu ëllëgee bu fi nekk rek di jël prétexte damaa bëgg yonent bi rek na nga jiital caabi ji nga xamante ne moo lay ubbil aljanna bu ëllëgee loolu mooy lan mooy génnaaw bi nga bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ci ay ndigal te bàyyi ay mm-hmm. macha allah. alors si li mu wax man question boobu bëggoon laajal sans rien avoir ak euh, ak gàmmu gi. Mm-hmm. je sais pas bon am naa droit euh, bon c'était mooy li nga doon wax au début que xaalis. Euh, ñëpp ko bëgg. donc euh, même bu fekkee da ngaa nekk da ngaa nekk yëngatu si diine affaire mais dama gis ni ñi nga xamante ne dañuy euh, di wax waxu yàlla tout le temps. Hmm. di topp li nga xamante en tout cas daal ñi nga xamante daal sont des hommes pieux. que mu nekk ay marabu wala mu nekk ay ay xib du zaman wala genre yu mel noonu. dañuy dëddu àdduna xaalis ñoom en fait contraire ak lu nga wax ci à l'heure loolu moo tax contradiction boobu mu jaaxal ma. dëddu àdduna xaalis. dëddu àdduna li muy tekki mooy bañ a jël sa bakken di topp ay bànneexi àdduna ak mais loolu bëgg xaalis ci la bokk de. bëgg xaalis képp ku ko bëggul ci jamono ju ñu nekk amuloo jom doo jullit doo gor naruloo baax naruloo réaliser dara naruloo tekki dara ci àdduna. daa neex képp ku bëggul xaalis jamono ji ku la ne bëgguma xaalis ne ko yaa bon te yaa ñàkk jom. pourquoi amee ah, loolu c'est grave. si si si maa ko wax fii laa ko waxee ci plateau bi. xaalis jamono ji ku ne la bëgguma ko loolu mooy kooku mooy narut a tekki dara ci àdduna parce que xaalis mooy tekki lépp xaalis ay def lépp boo bëggee boo bëggee boo bëggee boo bëggee samp kër boo bëggee samp kër di joxe dépense ci jamono jii ne xaalis ngay jox mooy dem ca marché ba mo panier ménager bi la boo bëggee sol ay yére yu baax kenn terewu la sol ay yére yu baax nag kenn terewu ko kenn xaalis moo koy def boo feebaree boo demee hôpital ba ticket ngay dagg mhm. ordonnance lañ lay bindal nga dem pharmacie boo fay abul xaalis ba bari nañu dee xam nga lan moo leen rey ñàkk ñàkk ñàkk mais mun naa yokk benn affaire une minute en fait oustaz dama bëgg wax dara ñi nga ay euh, ay ay hommes religieux lañ dans l'histoire ah. que euh, ñoom dañu simple comme ça ñoo xam ne ay exemple lañ ñu ñu partout dans le monde dañu da ah, waaw voilà ñoom ñëpp ñoom ñëpp da da dañu dañu simple xam lan moo tax euh, du ñu du ñu du ñu seen seen rapport amul dara ak affaire adduna affaire àdduna par exemple mu nekk kosom mu nekk jigéen mu nekk xaalis wala mu nekk affaire caaxaan parce que loolu en fait boo xasee bëgg xaalis rek am na yeneen affaire yu dugg en compte loolu mënuma comprendre bu fekkee ne comme saa yow da ngay prôner religion nga nekk ku pieux am gëm-gëm dëgg dëgg dëgg su fekkee da nga bëgg loolu loolu dëgg bu fekkee da nga bëgg xaalis trop trop rek dafay nekk en contradiction parce que yow sa conscience dafay dugg de tele sorte ko ba nga xamante ne euh, loolu moom moo lay gën a dominer dans les moom mooy moom mooy affaire àdduna plus que affaire religion nit yi duñu la gisee je ne sais pas ma xam ne moo comprendre donc boo waxee ni comme ça xaalis ku ko bëgg. li ma fi tuddal ñëpp. waaw daanañu am xaalis. te daanañu ko wut te daanañu ko jëfandikoo Cheikh Ahmad Bamba Mbàkke moo tabax jumaa ja ca Jurbel jumaa jooju xaaj ca jamono jooju ay millions moo ca dem Eh, eh, xaalis loolu ay addiye la oustaz ah, yow tamit. d'accord addiye lu mu doon addiye du xaalis. mais moom mu addiye ñoo ni taalibe ñoom ñoo koy jox pour jumaa ji mais pas que moom moo koy moom quoi. ñoom jëfandikoowul xaalis bi. ñoom ñëpp ñoom ñëpp nag bi sax daan lekk xaalis yu rasulullahi sax daan nañu ko jox xaalis waaye ma ne man baa bëgg xaalis man. waaw ko ñun ñi ñëpp ko bëgg. non man wax man waxuma waxuma bëgguma xaalis mais dama ne yow bëggoo xaalis ma a la bul ko am yàlla. ah de ëpp naa am imaam man de yàlla naa ko am. boo ko bëggul nag ma ne la yàlla boo ko am. jërëjëf oustaz xam nga ñaan boobu. <laughs> sa bopp bu <laughs> jot nga ñëw. ah weer bu dee bu jot may mun a fay la. boo toogee weer may mun a fay la ñëpp dégg la. waaw xaalis jamono ku bëgg xaalis jamono ji. Eh. doo <laughs> nañ waaye eh, Pape Malick bàyyi di ma yëngal waaye sama sëriñ nga <laughs> ah fa tabaarakallaahu ñun ñu ngi doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu yóbbu ñu ci yëfi jamono waaye fa tabaarakallaahu li mu waxit li mu waxit lu lu am solo la waaye xaalis moom man de ginnaaw ma bëggee yàlla ak yonent bi ak alxuraan jërëjëf merci beaucoup Pape à demain ah, pour le dernier numéro euh, ouais incha allah Keina merci beaucoup. merci Aïcha xanaa nga baal ma rek ma profité souhaiter joyeux anniversaire à bébé Bara kooku c' la deuxième femme de Demba Guissé sama doom la ah, madame Guissé depuis la France maa ngi lay ñaanal gudd fan et que lépp loo yootu rek nga jot ko yàlla bàyyi la auprès de Demba Guissé happy birthday à toi et je énormément à demain incha allah Aïcha. merci. merci <laughs> à demain incha allah <laughs> waay amiin. <laughs> mais lan ngay reetaan ba cooy nii. muy dee.